ñu ñëwoon nag ci le président Abdoulaye Dièye mu sigi jotna pour apporter sa contribution par rapport ak condition de vie yi ngeen xam ne ngeen koy nekk fii ci Dakar. effectivement siggi c'est un mouvement citoyen boo xam ne li ko tax a jóg mooy lépp lu ñu gis dans tous les fonds de la vie sociale. dans tous les compartiments yi nga xam ne moom la vie sociale composé na ko lépp loo xam ne mën nañ cee dugal suñu loxo pour jëmale Cees kanam pour wat ndaw Thiès pour wat Thiès way duñ ci xaar ma Samba duñ ci xaar ma Demba président Abdoulaye Dièye daf koy def ci poste bopam biñ ko waxé situation bi mu ni woon dina jappalé les étudiants dina ci duggal loxom lepp lu ci man aussi tamit par rapport aux autorités compétentes fiñ ko wara joyto mom dina ko dina leen fa nekkal euh, seen porteur de voix comme ça kàddoom tey jii àgg na foo xam fu mu waxé ñu dégg ko ñi nga xamni les autorités compétentes dañ ko joy ci ñom

Thiès seen étudiant yi nekk dans des conditions pareilles pour man gàcce la sur autorité Thiès waaye yi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo yor ndombal tànk yi. vraiment ñëpp xam nañ ne tey jii coordination bi ay at a ngi nii amuñu subvention xamuñu nag ba léegi lan moo tax euh, liñ ñu si war a def def nañ ko. boobu ba léegi aussi tamit amul y a aucune réaction au niveau des autorités yi nga xam ñu ngi nekk Thiès euh, mais nag dañuy sant yàlla bi nga xamante ne si biir ñooñu am na si ñenn ñoo xamante ne ñu yàlla baaxal lañ ñoo xamante ne vraiment xam nañ dayoo étudiant. ñoo xamante ne vraiment dañuy def te yàlla tax si ñooñu mën nañ ci lim ku si mel ni président lay Dieye daanaka tey jii nii moom moo waral lii. mu ñëwoon fi bu yàggul dara yebal fi benn mission de prospection euh, ki nga xamante ne mooy Massayer vraiment ñu koy delloo njukkal bu baax a baax a baax. vraiment aussi ñu ñëw fi euh, ñu dalal leen waxtaan ak étudiants yi. xool situation bu metti bu macabre bi nga xamante ni étudiants yi ñu ngi koy dundu ñu dem rendre fidèlement ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Dièye mu ñëw fi nag vraiment indi ay denrées alimentaires vraiment donc lii nii nekk loo xamante ne lu ñu yittewoo la te bu weesoo loolu aussi tamit mu jox ñu Euh, une enveloppe boo xamante ne tey jii nii c'est à hauteur de cent mille francs pour participation am tey jii situation yi nga xamante ne ñu ngi ciy dund kon mënuñu def lu dul sant ko gërëm ko ba pare delloo ko njukkal. donc président Abdoulaye Dièye gàcce ngaalaama tey jii occasion la pour ñu lancer un appel solennel à l'endroit des des autorités yi nga xam ne ñu ngi nekk Thiès à l'endroit des acteurs politiques pour ñu def lu mel nii. tey jii appartement bi ñu nekk nii nii ñu ngi jox benn délai boo xamante ne délai assignation d'expulsion la le 27 pour ñu génn appartement parce à nu somme estimée à à cent mille 000 francs donc muy ay mois arrière mënuñu koo fay parce que amuñu euh, subvation boo xam ne dañ koy fay tey doon dina ñaaw trop. ñuy génne xale yi ñu ñëpp ñu dajaloo jël seen bagage amuñu fu ñu dem tumuranke to loolu Dakar wala ñibbiwaat Thiès kon donc loolu doon na loo xamante ne vraiment ñu ngi koy lancer appel à l'endroit de toutes les autorités ñu ñëw jàpp si. bu président Abdoulaye Dièye gàcce ngaalaama mouvement sigil jot na tey jii sigil nañu loolu noonu ku waxal ku waxal yàlla te te yàlla tax rek xam ne mouvement sigil jot na tey ji étudiants yi kontaan nañ ci moom te yaakaar naa ne collaboration bi du yem fii nii parce que comme ni ko euh, Massayer waxee. ku xam étudiant xam ne les étudiants sont les primo votants fii tat bu nekk tey ku nekk xam nga ne tey jii ni famille nga représenté kon Ablaye Dieye dimbaliwul rek étudiants yi nga xamante ne ils sont presque au nombre de quarante cinquantaine d' étudiants thiessois yoo xamante ne dañu tumuranke amuñu fu ñu dem mais yaakaar naa ne ay famille la dimbali.